ngir ñu attewaat euh, mbir mi euh, bu ñu sukkandikoo ci benn communiqué bu ñu bu yegsi fii ci kër gi juróom-ñaari simili gannaaw juróom-ñetti waxtu. ak mbirum pouponnière bi di yërmande kako moom Ndella Madior Diouf booba léegi ñu ngi ko téye euh, démb lañu ko euh, déféré waaye nag retour de parquet la amee am na nag charge yu bëri yu ñu teg ci moom te sax am na ñu ci yokk bu ñu sukkandikoo ci euh, kàdduy maître Aboubacry Baro ñu bokk ci ay avocats ñu teewlu kook Jean Paul Ndour. Ndella Madior fu mu nekk nii mu ngi woo mu ngi tribunal xam naa dañ koy waaj a yóbbuwaat fële commissariat du plateau parce que dafa am lu ñuy woowee retour de parquet ki. Euh, au lieu muy dem prison euh, euh, dañ koy yóbbu dañ koy delluwaat dañ lay delluwaat police di ko defere woon mais fu mu nekk nii il est vrai que commissariat central moo ko defere mais jigéen ñi fële la ñuy fanaan xam naa plateau wala bu Grand Dakar yi ni mel. alors li ñu ko toppee nag mooy ay chargé yoo xamante ni benn bi mu ngi nekk mise en danger de la vie d'autrui waaw ak euh, exploitation pouponnière ab bërëb boo xamante ni dañ fay yore ay xale te autorisation ak exercice illégal de la profession de médecin c'est-à-dire que euh, ku boppam médecin nga te doo médecin di jëfee euh, di médecin di jëfe voilà loolu lañ ko toppee ak traite de personne également. kàddu yi maître Aboubacry maître Aboubacry Baro di avocat. bu ndee la Madior Diouf ñu wax ci mbirum euh, viole bu nga xamante ne nañu dañ ko def ci juróom-ñeenti xale yu jigéen ci benn internat bu nekk fële ca Jaxaay préfet bu Kër Massar nag ànd ak euh, waa ministère de la femme ak euh, AMO daal di nañu retiré fukk ak ñetti xale yu jigéen ak ñeent fukk ak juróomi xale yu góor ya desoon ci internat boobule yóbbu leen ci centre polyvalent bu yi ngir ñu gën leen a mën a jël en charge Aminata Ba. bi la visite bi nga xamante ne préfet bu département bu Kër Massar moo ko daal di jiite ci daara bi nekk ci jaxaay fi nga xamante ne nag dañuy tuumal ni sëriñu daara bi moo daal di sàkku juróom-ñeent ci ay gone. xale yëpp nag góor wala jigéen ñu daal leen di recensé. ginnaaw loolu autorité dal di dugal xale yi ci ab bus Dakar dem dikk ñu jëm ca centre polyvalent bu caaro yi. ñii nag ñu fas yéene leen toppatoo waaye itam gunge leen maître Ibrahima Guèye di directeur bu promotion des droits ak protection des enfants ci ministère de la femme de la famille ak protection des enfants. kër yi nga xam ne këru état bi la nga xam ne loolu moo ko tax a jóg mooy dalal xale yi nga xam dañu nekk ci ay jafe-jafe ko bu ñu leen yóbbulee foofu ba seen xel dal dellu ñu waxtaan ak ñoom ci biir loolu ministère de la femme dinañ ci andi suñu di ñaawlu bërëb yu xat yi nga xamante ne ci la gone yi doon dund. fi fekk def ñu yéem xale yu jigéen yi fukk ak ñett lañu bokkul ak jabaru sëriñ bi ak ay doomam xale yu góor yi ñu fi fekk bokkul ak ñi nga xam ne nee nañ ñoom dañoo dem yelwaani ñeen fukk ak juróom boo leen defee ci kër goo xam ne ñetti néeg la loolu danger ñoom ñooy ñëw nañu fexe ba identifier waajur yi ba xam fu ñu leen di contacter. ñu ëppoon nag ci xale yi daara bi nekk ci unité 23 bu Parcelles Assainies jóge nag ci région bu Sédhiou ak ca Guinée Bissau Aminata Ba Kër Massar rajo Futurs Médias. BRT bi tey la ñu koy tàmbalee doxal CETUD nag euh, tey ci ngoon lay lancé benn programme bu ci aju. premier ministre mooy présider euh, cérémonie bi euh, bu noppee nag daal di euh, procéder ci inauguration maanaam dalloo gi ñeel bus rapide transit diggante Liberté 6 ak Case ba BRT bi nag ci xaalis jar na lu toll ci ñetti téeméeri milliards ci sunu koppar ñi nga xamante ni dañu doon liggéey ci bus rapide transit bi ci chantier yi gannaaw ñeent fukki weer ak juróom. CETUD dafa jël dogal daal di tàggoog euh, ñoom am na it ñoo nga xamante ni dañ leen recruter ñu ne nag beddi da caa am. ba tax ñu mer lool ci jamono ji doon ci sax dajeeg taskatu xibaar yi Salamata Ousmane Diallo. ñun ñëpp ñu ngi daal di sol gilet yu vert yi nga xam ni société BRT bi moo ko moom njàkkare daal di fës ci kanamu ñi nga xam ni ay ndaw lañu nekk it ñoo xam ni ay père famille lañu. ñu daal door seen liggéey ci société bi ca mars ba tey jilee ba mu desee ay fan rek ji BRT bi tàmbali daw seen contrat ci lañ ko daal dakkal Abdou Karim Kandji moom

ñu parce que recrutement yi commencé na mais bi ñuy waxee recrutement ñu defoon nañu déposé nañu un collectif mais jusqu'à présent li ci recruté six personnes sur cent trente cent trente yooyu ñu recruté léegi kon am na cent vingt quatre yoo xam ne ay ñu bees lañu sa bees ñooyu cent vingt quatre yi liggéey bi ñuy liggéey actuellement pendant quarante kay kuy jël kuy kuy jël nit ki da jël koo xam am na expérience sa expérience am nañ ko ci ñu daal góor ñoom ñooy nekk ñi ñuy njëkk a recruter ci biir entreprise. ñi ngi euh, yëglu si président de la république xamal ko ni ko visite de bi ñu defoon fële euh, Liberté 6 ñu woon ñiy liggéey si chantier bi ñoo prioritaire mais jusqu'à présent six personnes jël si ñun loolu tax na taxaw tey di di yëglu. Salamata Ousmane Diallo Guédiawaye rajo Futurs Médias. waa CETUD nag euh, def nañu ci euh, communiqué xibaar ne ñooñu di wax amuñu benn contrat ak CETUD ci boppam waaye entreprise bi nga xamante ne boo yore wàllum travaux d' yooyu ñoo doon euh, ñooñu la am la ñu amal ak contrat. waa CETUD sax ne ñu seen requête googule jotoon nañ ko transmettre euh, société bi nga xamante ni wala entreprise bi yore wàllum exploitation bi nga xam ne procédure yi muy jaar ngir recruter leen ay procédure yu euh, yu rigoureuse la euh, te ay cabinet yoo nga xamante ni daal ñoom ñoo yore liggéey bi ci jëm ci wàllum recrutement yooyu ñu dem ca Mbàkke askan wi nga xamante ni ñoo dëkkee ca sànci Daaru Salaam ñoom nag jamono ji ñu ngi yéeglu ñàkkum ndox courant Euh, moo leen euh, sonnal ñuy sàkku ndimbalu autorité yi Papa Balla Gueye kenn taxawuñ jooytu nañ bu bëgg dee jooy nañ ba sonn askan wa yeewoo sanc daaru salaam jamono ji jafe-jafe rek la ñuy dund ngir di mën a am ndox soxna yi ñu daal leen di fekk ca teen ba nga xam ne mu ngi nekk ci jumaa ja foofee ñu ngi yor seeni bouteille di ko root kenn ci ñoom di Maam Jaara Sarr di dellu si waat ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund da yóbbu say bidon si robinet mbedd bi rang ba bés dem xool doo gis dara doo am loo naan doo am loo sangoo doo am loo toggee tamit gis ngeen ñu fii ci lii ñu nekk nii xam ngeen ne lii nii moom ñàkk pexe ra wañ ci àndi mais bii ndox nga dem di ko naan baa nga koy toggee lu ne man na la cee ndaw yi ak ñenn ci borom kër yi jamono ji ñu ngi ñaawlu jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di dund te daanaka jàpp nañ ne dañ leen a bàyyi ak seen bopp boole ceeg ñàkkum kaaraange ndongo gi di a veiller bu baax a baax a baax a baax suñ doom yi fi mu ne nii am na heure boo xam ñi mawuleen a yónni parce que agression bi bari na jafe-jafe yi fi nekk bari trop sorewul dara ñu daal di fay fekk soxna Issa Ndiaye moomee naka ay ñoñam jafe-jafe rek la ñuy dund ngir daal di mën a am ndox fajar di matee bu ñu ubbee seen bunt yi ñu tegale suñuy bidon ak suñuy paan ñu doog a seen seeni bëgg-bëgg nag du lenn jamono ji lu dul ñu daal leen di dugal ci réseau bi nga xamante ne ges nañ ko bu yàggul suñu sukkandikoo ci Abdou Ndiaye. contre ñu kenn dañuy wax li nga xam ne moom la ñuy dund ndax ñun ñooy yeewoo ci sanc yi ku dem na ko nag sanc yi lépp baax na ñu ngi koy nax nañ ko wax liy dëgg sanc yi dañu am jafe-jafeem ndox ak i courant. Abdou Touré Baara Mbacke ñan ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo dogu ngir fexe sopp xar kanamu sancu Daaru Salaam yi ñu ngi dellu di woo maire bi ngir mu respecté engagement yi nga xam ne moom la jëloon te jamono ji nag ñu ngi gàddu seeni carte électeur tey xamle ne bu ñu leen defaloon li ñu bëgg élection yi dana demee neneen Papa Balla Gueye Mbacke rajo Futur Média. maire ba ca boppam di Gallo Ba moom tamit jël na kàddu dalal xelu askan wi ñu teewlu ko. un milliard ci ci budget budget bi yokk na presque lu ëpp man lu ma deux waaye budget lu ci ëpp solo. mooy dañ ko jagleel fa investissement. parce que am na yeneen dëkk yoo xamante nii dañu jël fonctionnement bi mu ëpp investissement waaye fii Mbacke dama jàpp ne fonctionnement dafa waroon néew. bi ba ndax population li ñuy xaar ci wàllu éducation ci wàllum pàcc ci wàllu ci wàllu sport ci wàllu ci wàllu ndox wàllu courant dafa bari te yaatu moo tax ñu ne nañu mettre l'accent sur ci ci ci yi donc budget bi l'essentiel du budget boo ko xaajee ci ñaari xaaj li ci ëpp dañ ko jagleel investissement pour fexe réaliser ay travaux fii ci Mbacké. sancaani moom la ñu leen diggoon ñu ngi ci yoon di ko def yokk nañ fa courant yokk nañ ay lamp yokk nañ fa ndox ay tuyaux tànk yi wax naa ne waa ADM dañu dañu jox 30 millions ci wàllu ndox yokk ndox sancaani kenn ëppale kon am naa yaakaar ne ñu ngi yokk réserve au niveau des sancaani mais également ci biir Mbacké yëpp loolu nag euh, dañ koy yokk bu baax a baax te ci budget bi ñoom prévoir na ci yokk ndox bi yokk courant on a prévu cent quelques millions cent huit millions pour renforcer courant dëkk bi mégalement également éclairage dëkk bi galo Ba euh, mu ngi yëkkati yile kàddu nag ci bi ñuy voté budget mairie bu euh, Mbacké li ko dalee benn fan ci weeru janvier ci atum 2024 ci la ñuy tàmbalee euh, lii di dématérialisation formule diwaan loolu nag am na ay avantages yu ci bëri opérateur économique yi ñoom ñëpp ànd nañ ci décision googule Amadou Sabar ba ciy leeral. def ay jéego ba dédouanement marchandise yi gën a bar waaye tamit ñu jaarale ko ci xarala yees yi ak anam yu mucc ayib ba tax na ñii di opérateur économique yi jaratul ñuy déplacé wu ñëw ci service douane yi loolee bokk na ci politique yu yees yoo xam ne ne état bu Sénégal teg na ko Moxtaale Diop directeur exécutif bu Gaynde 2000 opérateur électronique bu guichet unique national bu commerce extérieur. jàppale commerçant yi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañuy importer am benn bët ci seen marchandise fu mu toll ndax dédouané nañ ko dédouané ko ndax bato bi yegsi na yegseegul et loolu day gën a tax tamit dédouanement bi gën gaaw parce que nit ñi duñu soxla dem ci ay bureau douane pour déposer ay papier xool nu ñuy woyofale ñii di opérateur économique yi ba ñu mën a jot seen i marchandise mu ba ñu mën a jot seen i marchandise ci anam yu mucc ay port ak douane ñoo ci d'accord lancé ko borom marchandise bi tamit bu dédouané ba pare du sonn pour mën a jot ba marchandise am du fa yàgg balaa muy mën a fay ay yenn pénalités yi parce que marchandise bu fa yàggee te ko ñii di opérateur économique yi rafetlu nañ politique wu yees aussi di exporter bu ci douane jaarale loxoom boobu ci xarala yu bees yi day gën a gaaw ci am ci temps bi njëg di gën a wàcc ba pare itam day am sécurité kon loolu ñun suñu avantage la te te bénir nañ ko. buruxloo ci bureau de douanement yi dina dakk ci benn fan ci weerum janvier ak 2024 yees yi nga xam ne teg nañ ko maanaam digitaliser opération de dédouanement yi. sport beeg Malal Junior Diagne Malal euh, Malal ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay euh, Barthélemy. ayca Diagne doxal. ñu tàmbali ak mbiru Boulaye ja moom euh, xabaar nañu démb nii. Euh, dina toog euh, ñaa ñeent ba juróomi ay ay bés du mën ti yëngu si wàllu football bi ndax gaañu gaañu gu mu amoon ci ay bis bi nu weesu loola xabaar bi nu yore wàllu docteur yi ca Italie ci équipe ba mu nekk mooy waa Salernitana noo ko xabaar la muy wund nag mooy bokkam ci Coupe d'Afrique bi war a xew janvier ca Côte d'Ivoire am na lu ci lu cay ñuul Abdoulaye Diouf Baar moo ci indi yeneen i xabaar. examen yi ñu nga xam ne Boulaye Dia waa na defal nañ ko ko li ñu wax mooy dafa am lésion musculaire affectant le biceps fémoral gauche. wax nañ ne dina toog lu mat quatre à cinq semaines. déjà protocole du rééducation commencé na ko kon groupe fii ci Italie am na groupe de presse yu bari yi yenn quotidiens yi ñoo ngi commencé wax que ni Boulaye Dia sera forfait pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire avec euh, les Lions de la Teranga même bu ci mercato de réparation bi muy mercato hivernal bi ñoo ngi xalaat que ni blessure bi dina yàq lu bari ci nga club yi nga xam ne ñoo ngi ko bëgg lu deme ni Inter de Milan Fiorentina Lat tamit mën nañ ko ca boole ak ñëw euh, Newcastle ñi nga xam ne ñoo ngi koy suivre euh, temps yi pour jënd ko Boulaye daal li ñuy xalaat daal mooy dina forfait ci kaan bi te transfert am ci mercato hivernal bi ñëpp yaakaaroon ne dina réaliser wu tamit mën na ci échoué ci blessure bi ndax bulaay ren moom dafa bari woo xam ne dafa am ay problème physique Euh, Aliou Cissé moom mi entraîneur am bi sax euh, mu ngi war a joxe euh, loole di liste bi daanaka ci ñaar fan ak juróom ñetti si weer bii nu ne muy aljuma ji di dikk ci lay siiwal suwar ya mu woolu ngir ñu mën a dem teewal Sénégal ci googule Coupe d'Afrique des Nations de football ca Côte d'Ivoire leneen itam si wàllu Angleterre jëm si boxing day bi euh, nu ni démb équipe bu euh, Liverpool jot na duma Burnley ñaari bal si dara daal di toogandi ci euh, place bu njëkk bi xaarandi alxamis ëllëg ji Arsenal joué ngir ñoo xam ndax dañuy des ci kaw wala dañuy jël place bi Arsenal. Newcastle moom dañ ko daal di dóor ñoom Moussa Niakhaté ñoo leen dem fekk ba noppi daan leen ñetti bal si benn. Manchester United ak supporteram démb feetu nañu ndax dañoo dalal ba noppi daan Aston Villa ñaar ñetti bal si euh, ñaar Boy Niang démb daje na ak ay supporteram daje ak ay taskatu xabaar wax li jëm si combat wam digganteem ak Modou Lo mu ni combat boobu la mu ca bëgg rek mooy bu cay dugg ci arène nationale mu doon challenge waaye bu cay génn mu yóbbaale euh, raaya buuru làmb ji te loola gëm na ni lu nekk te lu muy def la itam moom boo Niang la ñuy déglu. ñun dara diisul ci ñun ay doomu lamb lañ man doomu lamb dara diisul ci man bëri naa ay takkusaan yu bari Modou adversaire comme adversaire rek mënu wees adversaire comme lu Père Mansour Diop bi wax dëmb amu fi jinne amu fi kenn saxulaal amu fi ay nit da ngay bëre amul benn problème ba am suufee ñu bu baax bu soobee man amul ku ma mënta xeexal su toogee sama garde rek jege la ñu béy ci woon na neex trop. moo doon téye gauche man téye droit la moo taxawee ci gàttal téye ko bu baax a baax ñu weccoo xeet dina neex trop incha allah a xam beneen affaire ko bu soobee yàlla incha allah moom moo ko moom comme li ma ko rek suñu moo ko jël ci ay loxo teg ko ci loxo ay loxo la jugee te ci moom dem ci yeneen loxo fii kenn amu fi roi di ko yóbbaale wala yooyu yàlla moo ko yor moo koy jox ko ko neex incha euh, du ëllëg mooy alxamis waaw mm-hmm. ëllëg la moo di def euh, face à face bi ci euh, ci fi nga xam ni moom moo di euh, stade municipal bu parcelle. bu parcelle du ñàkk yi nañu ci jokk ak ñu yore écurie rock énergie bu parcelle. Mm-hmm. ndax xam nga Modou Lo bu mu mujjee def face à face foofa ca ca stade ba. Mm-hmm. daa feesoon ba ni dell daa mel ni nen daa fees del del del loola dinañ xam tey ji ñoom waa parcelle naka la ñuy waajalee xew moom ndax ba mu génnee ci Ama Baldé am ndam war a dajawaat ak boo booy ñaa xam naa ne waa parcelle euh, duñu ca puuca te duñu ca paaca dinañ ko topp ba ci kanam ñuy indil ci xabaar gaay acca ñu dem ndékki waaw dama dem ñu dem ndékki laa wax waaw mën nga dem mais man mun a mun aguma dem parce que journal bi jeexagul ah bon <laughs> xanaa nga xaaraale ma <laughs> kon bàyyi ma xaar la ayca jërëjëf Diagne rajo askan wi xibaari aada yi ñu dalal ci Ana Rocha maa leen di nuyu mbokk yi artiste sénégal yi ñoo jóg boole seen doole ngir ñax ngir nguur gi mu fexe ba loi bi ñeel rémunération copie privée bi ñu mën ko euh, dawal di ko doxal Sénégal fukki at ak juróom mu ngi nii ñuy xaar li ni mel mën a antu démb ñu ngi ci doon janoo ak taskatu xibaar yi Mactar Diouf moo doon euh, représenté artiste comédien yi ñu déglu ko. série yi ngeen di seetaan yëpp ngeen di déglu musique à part ñi nga xam ne ñooy auteurs yi am na ñeneen ñuy tëgg ñooñu tam c'est interprètes danseurs yi c'est des interprètes majeure partie ñi nga xam ne da nga leen di gis ci seen ci bi ak ci kaw ci film yi ñoom dañu am ay droit donc dañuy liggéey ba pare ñeneen toog kenn ku nekk toog sa kër yor sa téléphone di jëfandikoo ñoom la ñu liggéey la ñu ñàkk te ñoom amuñu droit droit boobu nag moom mooy rémunération copie privée mais loolu euh, monde monde bi yëpp dañ ko adapté di ko jëfee di leen fay mu tax ñoom ñuy dund ci seeni aar Sénégal nag li tax ñooñu di interprètes yi ñooñu di acteurs yi ñooñu di comédiens yi ñooñu di danseurs yi ñooñu euh, di producteurs yi ñooñu di yenn auteurs yi li tax tey bu ñu feebaree ñu leen di ñu leen di ñu leen di kettal ñu leen di jàppale ci ay social à la place ñu leen jox nañ leen jox seen àq seen yële parce que ñu ngi liggéey léegi nag. Sénégal daa bokk pratiquement ci ñi ko njëkk en tout cas adopté mais yu ko mosul jëfe ñàkk jëfe boobu nag li ko waral mooy ci biir état bi dafa am ay ministères yu ko seq finance da koy seq ak ministère du commerce da koy seq ak association des commerçants da koy seq association des utilisateurs da koy seq ak ñooñu dañu war a toog après bi ñu arrêté rek pour que douane mën a prélever xaalis ba nga xam ni booy kay ki nga xam ne moo ko fiy dund dugal euh, matériel yooyu wala di ko fi ñëwee di ko jaay ñu am pourcentage boo xam ne mu ngi ko jëlee pour combler vide boobu nga xam ne xaalis boobu koppar yooyu nga xam dafa waroon dem foofu ah boobu ba léegi ñu ngi naan ña nga cay liggéey comme loi bu ñu def 2008. 15 ans. ñu ngi ci doon amal ndaje ak taskatu xibaar yi ci euh, boobe euh, ponk dañ ci euh, déglu jimaan bokk ci soda foofe ca ci micro Fatou Mbow. dañu defoon benn commission nationale boo xam ne dafa jëm li nga xam ne mooy rémunération copie privée commission boobu noonu artistes yi amoon nañ fa représentant waxtaan ci ak ministère de la culture léegi nag li ci desoon mooy ministère de la culture ak ministère des finances ñoom ñu trouver consensus pour que ñu mën ko nekk loolu noonu mën a nekk loo xam ne dafay nekk en rigueur bu fekkee ne droit voisin troisième boobu noonu yàlla def na mettre nañ ko en rigueur ba mu commencé dox te xamuñ lan moo tax doxut loolu bu commencé rek jafe-jafe yi amoon ci artistes yi dootul am parce que képp koo xam ne interpréteur nga woon jaa ngi doon interprété di nga di mën a jot say yelleef ak say àq chaque année rek boo xoolee ci li nga xam ne mooy téléphones yi accessoires yeeg ñoom seen yooyu dañ ci perte boo ko globalisé ci 15 ans yi mu nekk 30 milliards yoo xam ne perte nañ ko. mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar ñal aada ci RFM. sticker rapido. Touba Darou Salam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari sumari.com. Kenkeyri le Grand Jaxaay ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg El Hadji Assane observateur fësale nataalu président Macky Sall bind ca wet ga Macky la fin politique fin di tekki xiif ci français xiif politique taq ci ripp donte yëgle ne ñàkk bokkam ci jongante palug njiitu réew 25 février 2024 ci yéenekaay bi ba tey di observateur ay xeltukat ci wàllu politique di ci ñëwaat nag ci intérêt bi mu am moom président Sall ci des ba tey ci arène politique bi ginnaaw pale ba pale ba nag ak fukk ak ñaari at yemu fa def ak réalisation yu takku rawatina ci wàllu jumtukaay waraloon sargaal gu rëy ko Souleymane Ndiaye ak partem s d loolee doon sargal ci esplanade grand théâtre foo sànni mbàtt mu takk source aané mobilisation double XL Souleymane Ndiaye def ngir delloo njugal président Macky Sall moom sëñ Ndiaye ci yéenekaay bi di ci wax ne liggéey bu rafet ngir Sénégal ak kóllëre gu mu am moo waral loolu lépp teg ca nag mu ne 2024 dina takku ba Amadou Ba falu palu ku doon nag ci mbër yi daa am lu ko jiitu mooy conseil constitutionnel daal ne say këyit baax na te loolee faw ak taaxirlu biig la woon délai bu mujj bi Sud Quotidien ne wa dem na léegi juróom-ñaari sages yi di juróom-ñaari kilifa yi ak conseil constitutionnel ñoo ci des ci yooyu jamono agent judiciaire de l'État sërëxal moom ak càkkutéef ca yi ni ko tribunal grande ñu seen bokk nar a bu nu sukkandikoo ci kàdduy Mambay Niang ci la mooy Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ndax sëñ Niang dafa gis ne am na lu dialogue ba fi woon ci wàllu politique wutalul woon saafara ba fii mooy mbiri alamaan yi ñu leen tegoon ñoom ñaar ci wàllu yoon candidat yi yëglu woon yëpp nag ndeke ci njëlbeen ñu ca bari ay xusmaa ñàpp lañu wala ñu doon wut lu ñu waxul kenn yuuxu ba ñëpp dégg leen ne ay mbër lañu ginnaaw si ñu yolleekuwaat ne mes le soleil ne ci trois cent wala deux cent yu tegal ci mujjantal juróom ñaar fukk ak juróom-ñeenti candidat rek ñoo daal di déposer seen i dossier segg gi nag di parrainage bi yéenekaay bi di bis bi le jour ñëwaat ci chance bi ñu nu duppee les petits am risque ñu nu duppee les grands ak it ñu ne ñi parrainage député yi sowe clôturam déposé dossier présidentiel gi nag démb ci minuit l'info ne léegi ñu ngi ci virage bu mujj bi faw ak jàll yooye du saf safa ak marwa sax ñu ne ci atum 2019 candidat yi ci mel ni El Hadji Malick Gakou Bougane Gueye Dany ak ñeneen kale woon l'info ne ci weti màggeti jinne yi politique yu ci mel ni nag Idrissa Seck Khalifa Sall di ñu am expérience ci terrain bi candidat yu bari yu soog a jóg ku moywul ci tefes gi la ñuy des ancien premier ministre Abdoul mbay moom ci la tribune la mu gis mooy changement di coppite ci réew mi lu nécessaire la lu war a am lu ko mooy ci gis-gisam ci musiba la nu jëm opposition bi mu ne war nañoo def seen kéem kàttan bennoo ci taxaw xeex ngiri élection yu jaar ci yoon yu leer ca nag mu ne du rek président Macky Sall nee na nañu woteel du Ba rek nit ñi daañu woteel Amadou Ba coowal Ndella Madior Diouf ba tey ci yéenekaay yi ci observateur ñu jàng ca néewub liir bu ñu dugaloon ci siwo glace benn médecin SOS santé bu ñu teg loxo animateur rajo bi ñu jàppoon it moom ci kanamu enquêteurs yi nangu na ni suul na ñaari liir ca yoof am na na kenn ku mu ci lëngaloon di complice ci yooyee armeel ñu ngi koy wër ba tey libération ñëwaat ci tuuma yi enquête kat yi nag daal di nar a ngàll euh, Ndella Madior ak ñu nu jàppandool di ak paate maanaam rey gu àndul ak tayeef ñàkk toppatoo ay gune ni mu waree dugal seeni bakkan ci xott def liggéeyu médecin ci lu teguwul ci yoon yore pouponnière bu teguwul ci yoon njaayum nit ak yeneen ak yeneen l'info ne moom dee la Madior Diouf retour de parquet la am démb kon jaaraat gi ci kanamu procureur day wéy ñeenti tuuma nag yu diis ñoo tegu ci ndoddam wàllu sport ay fan des ci kan bi ci Côte d'Ivoire ci stade yéenekaay Idrissa Gana Gueye mel ni ku Everton jigul wala boog dalalul xel am na fa gaañu gaañu bu faw ñu xaar ay fani fan ci kanam ngir xam nu wànnent di mujjéeg boroom stade yéenekaay moom wax ci Lamine Camara def ko l'homme de l'année 2023 journal record naka noonu bu GFM fësale nataalam moom Lamine Camara xamal ñu ne muy Chelsea di Brighton ñoom ñépp moom la ñuy wër jamono yi sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Kenkeri le grand jaxaay ñoo leen doon may ci yéenekaay jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yi yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun xibaar yi fii lañ ciy yem dafa pàttali élection présidentielle gi ñuy waajal ca atub 2024 lu ëpp juróom-ñaar fukk ak juróomi candidat yóbbu nañu seen dossier euh, candidature démb ci bi minuit di jot la conseil constitutionnel tëj liste bi euh, mbirum Ousmane sonk ak euh, dellu seem ñeel liste ci liste électorale yi gannaaw décision bi ci tribunal d'instance hors classe bu Dakar jël agent judiciaire bu nguur gi nag daal dina ci saisir cour suprême Ndella Madior Diouf démb la ñu ko defeere waaye retour de parquet la am Euh, am na nag bari na nag lu ñu koy toppee te sax euh, am na lu ca yokk bu ñu sukkandikoo ci avocat mu BRT bi tey lañu koy tàmbalee doxal CETUD tey ci ngoon lay tàmbali benn programme gu ci aju mu ngoog mu doonoon xibaar yi Barthélémy Ngom ci kàddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi te di ko sàkku ci yéen way leen di ànd ak programme rajo Futur Média asalaamaaleykum CEPES, leader incontestable dans le domaine du sanitaire et de la tuyauterie, ouvre ses portes dans la ville sainte de Touba au niveau du rond-point Héliport réew mi ku nekk jox cër CCPS ñu daal di ñëw nag ubbi ca Touba